صليا وسلما على النبي واقض بي عدد كل مسلمين براز من بارزني براز من يبارز منتقما بارز من براز من بارزني براز من يبارز المنتقم البارز إذا دلت من إلهي جل بار وإن دربت بإلهي جل بار لجاد بالتوحيد ربي الأهل مزاد لي بقل هو الله الأهل براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باخترادي براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باحترادي لو سكورها على عيادي عبدا قديما فاز بالعياد السلام عليكم أهل الصفا السلام عليكم ورحمة sama bokk yi bopp yi sama doomi bopp yi sama rakki bopp yi maa ngi nuyu di leen ndokkeel nag ci weer wi sax laay wax ndax weer wi rek weeru barka la ndax bokk na ci weer yi nga xam ne sa boroom def na ci ñoom dañu def ci ñoom mu ñetti weer yi nga xam ne asaru xurum lañu di woote may sant bu baax nag ci teew gi fii ak ni ma fi fekke ñu teewe nii may wax léegi ni wax léegi rek di nuyu imaam ak seen jiile ñoom sama doom yi nga xam ne ñoom macha allah maa leen di siyaar bu baax a baax di nuyu mbooloo mépp nag leen wax ne bég naa lool nag sant naa lool ci ñëw gi ma ñëwee di wax ne bis bi nag moom di ko saxaat wax léegi rek sëriñ bi nga xam ne moo sabab lii Cheikh Moustapha dafa doon loo xam ne ci man dafa doon koo xam ne ci man mënuma leeralam doon mooy lu yàgg lool loo xam ne du tey du tey Euh, nekkee ndaw la ñu jàppe woon lañu ñu jàppe ba léegi ñu ànd ko lu muy tàttar bu faraf ba demee arab wax ci bëccëg trois heures foo ma nekk ci àdduna bi si musaa dana moo waaw samedi ji weesu rek nga xam ne dañaan daa baax watu sax woon na ma ne ma di ma ko wax di ma ko yëgal kon kooku am na lu bëgg sànq su yàlla jàppale te te ñu bokk ko sunu kilifa googu nga xam ne nag moo tax ma koy def damay wax ne euh, wax ci moom mënuma ko ndax day wax ne sëñ Modou def ñoo yar alaaj baari yeenu te muy loolu wér a wér ndax euh, alhamdulilah rabbil alamin àggoon nañ foo xam ne mag moom bu ñuy wax damay jàpp ne ku ma mag sax man maa mag lay waxal ci ab cër bu mu joxe woon euh, ci waaye du xar du amul amul du du yéeme ndax ko xam ne euh, Serigne Fall daana wax ne fu ma ko seen ñeme naa fa ngir ak bëggam ci moom ak nu mel ci moom kon duma jàpp ne ba demee gëm ne sax gëm naa euh, la muy def kooku rek tax ma koy def dañuy toog di wax di wéetey wax bu nit ñi toogee day mel ni Cheikh doomu bàjjanam la loolu cër bu ma joxoon la luy wax sax bu kenn waxee sax ko xam ne kii ju daan Cheikh Balla moom man lay jëkk wax day juum sax léeg-léeg di wax ne Cheikh Balla moom te fekkee keneen lay waxal danaa kii laay wax kon cër la bu mu amoon ci man ak ñeewant goo xam ne yëgoon naa ko bu wér-wér moo tax lii ñuy def tey nga xam ne mooy fàttali ko ak ñaan yàlla na saabu àggale ca moom te ful ko ni muy fule lu baax te jëbal ko ko ku baax la woon ku bëggoon Serigne Touba la woon ku seey Serigne Fall la woon boo yaakaar naa ne firnde ji mooy tey ak suba tey ak suba moom dara xaju fi yàlla defal ko lépp mu liggéey ko ba muy wàcc ko mu rek bis ba bi fi ne tamit dimanche ji fi mujj ci àdduna war na ma téléphone maa ngi dali kooku jàpp diggante boo xam ne kenn gisu ko ma toog Saliou woo ma ne ma sëñ bi soxla ma ko noonu wax ma ko nekk ñëw muy war war rek Saliou loolu du ma ko wax mu ne waaw mu ne ma ko dégg ko dégg naa kàddu sëñ ci dimanche ci dimanche ca àll àll àllarba ca mu def na mu def donc amoon na yéene kon amoon na lu bëggoon ma ne ko maa ngi ñëw dax ci kat li ci yéeme bis ma dagg bi nga xam ne alxames laa war a ñëw man alxames laa war a ñëw dem naa ba par par hôtel bi may toog pour fa jël dem aéroport ci guddi la noppalu xam damay xëy may man ci moom mu xooloon ci man lu ma yëgoon la lu may sàmmale encore ni ma ko waxee rek sëñ Moussa def noonu ne nag euh, motoda naa ne li ñuy tudd incha ijtimaa yi moom la ñuy wax si Moustapha ne moom jotaayam ñëpp ci bokk euh, Alaaji Baara jàpp naa ne ñi nga xam ne ndaw lañ mën naa am duñu xam waaye koo xam ne euh, bu yàgg ba ba àdduna bi caax soogut boo ñëwee ci bunt kër nag fekk mu toog fa teg caaf nit ñi di duñ doyri de ndax man na lam doon euh, te mën di caaf loolu ñu doon yooyu de ak ñoom kon yooyu doon bu ñu xamoon ne suñ tubaa ne koy nuyoo nuyoo dinañ yëy ba doyal waaye xam ne suñ tubaa la ko yëndoon jëmmi suñ tubaa nag ni ma koy wax toujours rek jawhar la boo xam ne wala boo benn la moo xam ne gas nañ ko ci suuf ba génne ko jëfandikoo donc ko ba ci des waaye nag nga am sa mbellu mel noonu war koo takk koo war koo rafetoo ba noppi suraat ko ci suuf moom doon suñ tubaa mooy lan ni meloon rek daana na ma seex man a man du may tëju ku ñëpp soxla doo tëju kon mooy mm, lam yëg lam doon yëg na ko moom daana ko doxee kookee nag tey bu fekkee ne am nga ku mel noonu Cheikh Moustapha jaar fii ni ma ko waxee léegi man de mën naa ko seere ndax euh, ba ñu nekkee fay le woon ca kër Laaji Baara ga néega nekk ca penku ba laa fa daan ñëw boobu yàgg na ba alhamdulilah maanaam ba yu bëri di xew boobu yàgg na mu may xoole loola ñu ànd ca loolee ba lii xew tey kon ku ni ñaar ñoo ñoo la seq soo doon daw téeméer war ngaa daw ñaar téeméer say tànk bu mu taxaw si Mourtala da nga jël si tànk def ko muy sab oto foo seen koo xam ne kii war nga ko def na nga ko def ceex ba jox ndax cër boobee la Cheikh El Hadj joxoon ay bokkam wallaahi nee na ma Cheikh man ko ah, mu ne ma nekk naa fi ba jóg sëñ Modou jóge fi déggul ma ko déedéet Cheikh Saloum mii nett lim ab xissa bu gudd la waaye ba ko suñu saa laajee te moom defu ko loola dana ko nangam yaa ko def nangam damay dégg nu demee mu ne ko waaw te ne boobu xamut la mu doon ñu wax ne suñu saa yu ne ko de mbakke li fekk yaa ngi fi de ma nekk fekk yow doo dégg déedéet déedéet jii ma wax déggal dégg na ma ko jégal xool baat bu xool loolu ndax nee kilifaam warut dégg déedéetam bu doon suñu saa ne ko yaaree diw dinaa ko wàllu koy wax wax di ko wax déedéet mu ko àggoon na foofu ko àgg xam ne nga xam ne kon yow lay wax sax ak ñun ñëpp muy ay barab boo xam ne ñëpp ko bokk ndax ay ndaw te dañoo bëgg euh, nangam amanta am moom mënta nekk ndax yàllaa fi nekkoon yónni gën ci nit ñi te dinañ ba ne Sëñ Bàmba kay mel moom kon mën naa nekk kon lu jomb kon comme dañoo nekk nag di dox yoon wi gudd lool ñu war a am fu jëm kon dañoo war a takkaayu am nu ñuy doxe am nañu mel loolu lay gën a dénkaan nag ne mbooloo mu fi tokkat kenn ko fi nekk amut foo mën a dem amut te nit ñu yu rek fi nekk ak nit yi bokk ak ñoo xam ne fañ nekk dara lañ fa buñ dajaloo fii nag ñëw fi nekk fii yow bul jàpp ne yaa mel noonu li am rof yàlla wax ne euh, nit ku moom boo ko defalee mu ne man jomb ma boobu juum na lu ñu defal xam ne euh, la nga def dem bañ def la tey na nga fexe bu déwénee ñeneen ñëwaat ñoo xam ni bokk ñii te la koy may mooy rek nga gën a yëge gën a yokk say jéego gën a yokk sa dox ci ñoom yàlla la si jàppale te yàlla defal ñu dikk bi mi ak njëgal ak ko yaatal ci barke Sol Xadim ñuy sant ñëpp rek nu ñooy lim waaye ñëpp gis nañ leen ñëpp xam nañ ñenn ñi ñu des tey leen waaye dina ko jàpp bu soobee yàlla yan sa boroom mu defal ñu tawfiq ak mucc ak saxaar daay na ci ci li ñu nekk incha allah ak wa salaamaaleykum wa rahmatulah. kon ñu tàllal sëriñ bi ñaanal